wa nabbihna qabla almanaaya min nawmi alxaflati walkasalaan wa aminna min adaabi alqabri wa min suaali munkarin wa nakiir wa min akli diidaan wa bayid wujuhana yowma albaati wa aatiq riqaabana min anniiraan wa yemin kitaabana wa yassir xisaabana wa saqil miisaanana bilxasanaat wa sabit aqdaamana ala siraat wa askinna wasata aljinaan warsuqna jiwaara sayidina muhammadin alayhi salaatu wassalaam wa akrimna bi liqaaika ya dayyaan allahuma jahal alquraan alazima rabia qulubina wa jalaa ahzanina wa dhahaaba gumuumina wa qaaidana wa saaiqina ila jannati naim allahuma ijcalhu anisana fi lwixsa wa musaaxibana fi lwixda wa misbaaxana fi zulma wa dalilina fi lxayra wa munqidana fi lfitna wa asimna bihi min alzeyqi walahwaai wa kaydi alaadaa يا رحمن يا رحيم اللهم أختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا وقرن بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واصبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك سادنا وثقة بك ذخرنا واعتقادنا وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلغ صواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين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 bismillaahi rahmaani rahiim qul huwa allaahu ahad allaahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillaahi rahmaani rahiim qul huwa allaahu ahad allaahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillaahi rahmaani rahiim qul a'uuzu bi rabbil falaq min sharri maa xalaq wa min sharri gaasiqin izaa waqab wa min sharri nafaasaati fil 'uqad wa min sharri haasidin izaa hasad bismillaahi rahmaani rahiim qul a'uuzu bi rabbin naas malikin naas ilaahin naas min sharril waswaasil xannaas allazii yuwaswisu fii suduurin naas minal jinnati wan naas a'uuzu billaahi minash shaytaanir rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin bismillahir rahmanir rahim alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin lazina yu'minuna bil ghaybi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم بارك الله ok ok salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokk julliti fi teew yëpp ki taalibe yi ginnaaw bu nu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant borom Touba yeesal sunu taalibe ci moom di ñaan mu nangul na ko noo ngi nuyu bokki jullit yëpp maag sama bokk yi ma àndaloon liggéey bi muy sëriñ Basiiru Mbàkke mu sëriñ Fàllilu ak sëriñ Basiiru Mbàkke mu sëriñ Habibu ak mboolam raabita bi mu bokk àndal sëñ Xaari Jaxate jiite leen sëñ bi tegul liggéey bi ci seen loxo di nuyu nag ci turu njabootu sëriñ Tuubaa gi fi teew gépp te jëfe ndigal li ak rafetal ci taay bi tax ñu teew fi ràññee nañ ñu baree bari waaye dañuy bañ ay tur di bàyyi kenn di nuyu it ñi nga xam ne ñoom lañu fekk ci jumaa ji ñu dalal ñu dalal daara yëpp dalal jàngate alxuraan yëpp muy waa Muxaddamatul Xidma ak ñi liggéey ci jumaa ji ñëpp ñi yar mbirum jumaa ji ñëpp di leen bokk nuyoo bi nag ak ak siyaare bi ak jëfe ndigal li ñu bokk ak sëriñ Amsatu Mbàkke mi nga xam ne moom sëñ son bi mi nga xam ne moo jiite njàngum xasaayit mi te nekk fii ci kër sëñ Abdul Ahad te nekk fa mbooloo mu bare bare di leen jotul ay kàddu yu bàyyi ko ci sëriñ bi Cheikh Mouhamadoul Mountakha ayyadahu llaahu wa nasarahu wa ataala baqaahu fiina bi barakati xadimil Mustafa mu wax ni moo digle woon lii digal ko digal ko taalibe yi ñaan ko jullit yi yi mbokkal lislaam yépp ñu teewlu bi su tey bii jàng alquran ak xasaayiti sëriñ Tuuba ngir lépp loo xam lii sëriñ Tuubaa daan na ko sàkku wax na ne ci ñaar yooyu la ko daan sàkkoo muy alquran ak xasaayit bu dee alquran mooy rajaw naa minal mawla bihi xayra matlabin wa bi bihi fii kulli dafxin wa fi jël bi te ñaar yooyu rekk a am nag loo bëgg a jiñ ak loo bëgg a ñoddi sëriñ bi wax ne lu masaan bëgg a jiñ mbaa mu bëgg koo ñoddi ci alquran la ko daan jiñee ci la ko daan ñoddee daf xi wajal bi xidmatul haajil amin muy xasaayit yi lu mu bëgg a jiiñ mbaam bu ko ñoddi ci xasaayit la xasaayit yi mu defal yonent bi di ko ci tàgg ak di ci julli ci moom ci la ko daan jëfandikoo kon ñaar yooyu di ñaar yoo xam ni sëriñ bi wax na ni saa bu jamono yëngoo wala ñu am ay tartar wala ñu am ay njàqare nanu biir ni buñ ci delloo fi kanamam moom jëm ju tedd ji suñ lépp mën naa baaxaat àdduna ak àllaaxira te lépp mën naa tegu ci yoon ci yoon moo tax bëggal gi mu nu bëggal lu baax moo tax mu digal nu ko ndiggal lii itam ñu am ci tawféex yu baree baree bari la ci jëkk mooy weer yu mu nu ko digal muy weer rajab yu baree bari taw ci ci lislaam la ca topp mooy daje gi mu dajeeg bisub soxna su tedd sii nga xam ni mooy lépp sëriñ bi di suñ lépp mu dajeeg moom la ca topp mooy bisub tey bii ci lañ tàmbali woon liggéey bu jumaay tubaa jii te sëriñ bi nee na ku ne xam na ni sëriñ Tuubaa loo ko loo ko tudd tudd jumaay Tuubaa loo ko ñaan dana la ko may ndax mooy léppam ci la ci la jeex takk ci mooy liggéey bi ko gënal ci liggéey yëpp muy jumaay Tuubaa ji ci bisu tey bi lañ ko tàmbali woon moom mu nekk bis buñ ko tàmbali ak bis mu àgg ñaari yëpp jàpp nañu ñaari bis yoo xam ni lu ci waaye ñaan Serigne Touba te teewlu te am pësteef suñu borom dana ko nangu kon nee na nam nam nu ko digal woon bir na ko ni noonu lañ koy defee mu jëkk a jéggalu yàlla tuubal ko jéggalu ko sàkk ay sarax jox ko ñu ko aajowoo jàng alxuraan suñ kem kàttan jàng xasaayit suñ kem kàttan nee nag bu ñu noppee nag ñu taxaw ñaan suñ borom ñaanal ko moom ci boppam ñaan na leen ko ñaanal ko moom ci boppam lim sumbal sëñ tubaa suñ borom bàyyi ko fi mu àggale ko ñaanal njabootu sëñ tubaa gii mu fi bàyyi gépp góor ak jigéen mag ak ndaw ñaanal taalibe sëriñ tubaa yi fi nekk ñaanal mbokk jullit kilifa yi diine yi fi nekk ci réew mi yëpp ak ñu nekk ci àdduna bi ñaanal réew mi ñaanal àdduna sépp ñaanal mboolem jullit yi suñu borom lépp luñ tiit luy tiitaange wala muy njàqare sunu borom dàq dàq ko mu dem ci àll ba te bañ a jaar fi fépp ci barke nee na mën na ko te ñaar yi mën a jox ñu di ko ci aw lépp luñ ci def te sellal ko te yàlla tax liggéeyal Sëriñ Tuubaa tax ñu di ko def luñ ci bëgg nee te mën a am nee am na ci yaakaar ju wóor ju wóor a wóor loolu moo tax mu ngi mu ngi di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan lépp lu fi waa ñaan bisub tey bii loolu noonu la ma ko waxee barki démb ci poroxaan mi ngi ñaan lépp lu fi waa ñaan lu ko ci bis bii ci njàngum alxuraan mii ci njàngum xasaayit mii lépp lu fi waa ñaan te yéene ko boppam yéene ko judeet yi yéene ko njabootu sëñ tubaa gi nee na bir na ko ni loolu sëñ tubaa dina ko def kon nag yàlla yàlla def jàmm ci réew mi def jàmm ci àdduna si defal jàmm taalibe yi defal jàmm kilifa yi defal jàmm kilifa diine yi defal jàmm judeet yëpp defal jàmm àdduna sépp ci barke borom tubaa loolu la sëñ bi ne nañ ko jottali ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal nag ñëpp di xam ne ndigal moom ku ku jëfe ndigal na ko sëñ bi diglee te am ànd kooku sell del séentu rek lam la nga ca war a am la nga ca war a am lépp danga ko am ñoo ngi sant ñëpp ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu kulli bihi kala adduhu ilahi lasi hamat mawaahibuhu li jumlatil xalqi ma yaxtaar man baraa naajeytuhu jalla ahwaman wa karramani takrima haadin wa kulli min laxan baria rahmanu habli jamihil xalqi rahmata man yuxni ani sharri man qur'anahu qaraa xutumatal mustafa حطمة المصطفى حطمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدا يا مالك الملك يا من جل عن قول ارحم جميع الورى يا هادي ردا ما وتماقتنا والقلب من درر بجاه أفضل من لا قد لجا نجه يا للمصطفى بعد صلاة مع سلام من هداهم القلا يسر لهم به الذي تعسر فكل ما يسرته تيسر والطف بنا وخونا وكن لنا وهب لنا حسن الختام ربنا وصلي على النبي وسلم وقت به حاجة كل مسلم بارك برمتوبا fàttaliku xeewal yi xeewal yi ñu ngi ci bitti ñu ngi koy waajal man nañoo génn ci bitti rek te داري وثبته بالهدى